Bon, pour ñun euh, les urgences de ce nouveau régime ont été comprises par euh, lu nouveau régime euh, parce que bu ñu xoolee lu tax aujourd'hui ñu fal leen mooy dernièrement lu fi jot am yëpp te ñoom ñu subir ko dund ko au même titre que les populations muy dund ko cher muy injustice te man jàpp naa actuellement tout toutes les préoccupations du nouveau régime doivent tourner autour de de ces deux points là mooy xool naka la ñuy alléger le pouvoir d'achat des Sénégalais mais aussi naka la ñuy def injustice bi nga xamante ne demoon na ba yóbbu Sénégal ci ja moment yoo xamante ne kenn ñaanu ko woon tey ñu xool naka la ñuy dem ba dootuñ ko observer fii ci Sénégal injustice ci ban fànn injustice ci ci ci ci côté yu bëri parce que demoon nañ ba gis nii non seulement day am des fois une instrumentalisation de la justice day am aussi euh, un deux poids sur le traitement de certains dossiers day am aussi nit yoo xamante ne nit ñi tuumaal si yoo xamante ne euh, amuñu certitude mais dañuy jàpp ni peut-être fu ñu bokk wala fu ñu far tax nañu bu ñu demee si yoon rek kenn du leen may bénéfice du doute dañ leen fay denc lu yàgg bàyyi leen fa eh, am na yu bëri yoo xam jur na ko fii de détenus politiques ay jàpp ay nit am na yu bëri yoo xamante ne daal on a vécu tous ensemble donc jàpp nañu aujourd'hui avec ce nouveau régime loolu ça doit être du passé bi nga xamante ne le Sénégal ne doit plus euh, le revivre